baayam wegoon maamam wegooni magam wegooni rakkam wegoon tariqa yépp tey jii mu woote taawam ba ci ndigalal sëriñ Muntaxa mu Basiiru Mbàkke yal nan ko yàlla fayal ci ci diine ji muy sëriñ Moussa Nawel yabal ay rakkam yépp waaye ci seen bopp ñu teg ca Basiiru Mbàkke moom sëñ Moustapha Bachir ñu koy wax sëñ Basiru Poroxaan bis di doomu soxna Ami Mbacke bu Cheikh Moustapha Mbacke kooku rek ni ko Ablaye waa Mbay di waxe doyoon na ab délégation waaye mi ngi ànd ak sëñ Modou Abdoulaye Mbacke di seen rak ñu def ko président commission d'organisation bi pour guddik pare mu liggéey ci liggéey bu rafet ci wetam nag rakkam yëpp muy sëñ Cheikh Awa sëñ Basiru Mbàkke ak sëñ Fallu Caar ñoom ñu ànd ak seeni rak yëpp teew fii ci waaye nag bala ñoo jàll sunu yaakaar tey ak ëllëg xalif général des Mourides sëriñ Mouhamadou Lamine Bara mu ñëw teewal ko fi waaye bi mu ñëwee it mi ngi fi fekk Serigne Galas Mbacke ñu koy wax Galas Kaltoom muy doomu Serigne Moustapha Bachir ci barab biit jàmbaar jeneen teew fi teewal fi njabootu Xaadimal Moustapha muy Serigne Abdou Samad Mbacke ibnu Cheikh Soyibu Mbacke jàmbaar jooju nga xam ne li mu ci lislaam kenn ku nekk na ko kon bu ñëwee teew fii fekk fii koo xam ne sëriñ bu tedd la muy sunu bàyyi sëriñ Cheikh Macky lay ko yàlla fayal yebal sëñ Cheikh Coro mu ànd rakkam teew ci tribune bi mënees koo bañ a tudd wax ko ba ñëpp dégg ko waaye kër yëpp muy kër sëñ Abdou Lahad Mbacké muy kër sëñ Fallou Mbacké muy kër Cheikh Moustapha muy kër Cheikh Soy bi muy kër kër sëñ Mamadou Lamine Bara Mbacké muy kër sëñ Abdoulaye Borom Dër bi muy kër sëñ Abdou Samad Mbacké ñëpp teew nañu tey Touba euh, teew nañu Ndar ngir guddi gii nga xam ne day guddi goo xam ne gii bu rëy la ci yoonu muy sëñ témoignage yi Serigne Cheikh waxoon ki ñuy njëkke mooy Serigne Yoro Diaw Seck kooku ci lan lay témoigner Serigne Moustapha ci lan la koy seere lim koy seere mooy exploitation yu am solo yi mu def waaye moom bi mu seere mooy exploitation wisicole bi mu def muy xeeti mbayum ceeb ci gox bi ak yeneen liggéey yoo xam ne Serigne Moustapha def na ko kon Serigne Yoro Diaw bismillah bismillah a'uuzu billahi mina shaytaani rajiim di sàkku ñu ñaanal gox bi ñaanal borom réew mi man nag sama wax dafa mel na bari na sax ñu si sàq mi waa ji loo bari na lu mu ci wax mais sëriñ Moustapha tool boo xam ne kenn mënu ko jeexal da bay sa waar bàyyi sa morom bay waaram rek ñun nag yàlla def na bi mu ñëwee Ross Béthio ba léegi ak waalo yëpp dëkk boo dem tey am na fa daara tabaarkalla am na fa tool yàlla may na nit la boo xam ne bu tabe la bu am xam-xam la. bu woyof la ku yërëm doomu aadama la am na it jukko yoo xam ne néew na léegi ci Sénégal yàlla jox la daraja ak baat nga woyof tool la ba gën a ba gën a woyof donga ya ak ñi nga xam ne dañu waroon di la tarbiyu yàlla may na ko lool li may seede ci moom mooy àll waalo bi bari na loo xam ne toj na ko ba tey sëriñ su bari ñeme na di bay foofu moo fa jëkk ñëw di exploité ay projet yu yaatu tey boo demee tey waalo sëriñ sëpp yàlla def na tey ñëw nii di ko toppandoo beneen bi si deseet ni mu yaree njabootam jafe na boo demee dëkk bu nekk tey taalibe bii fa nekk ak ñi fa ñi fa fekk baax xàmme wala dañuy jaxasoo ànd bokk ndey bokk baay boo demee tey taalibe mi daañu nekk ay chef de village sa dëkk ya daañu fa nekk ay imam daañu fa nekk président daayira te loolu lépp moo leen ko yaral bu ñu déggoo réew ma ànd ak ñoom sëriñ Moustapha nekkoon nit boo xam ne xeeti teraanga yëpp dana woo mboolam réew mi dajale leen dem mboolam xeeti teraanga yi mooy jiitu di séddale lépp loo xam ne si teraanga la jox ko doomu aadama te booy dem dana la jox ba sa poos diis te kenn du ko yëg yàlla defoon na yit bu béyee ba pare mboolem li mu béy dafa koy bojja yóbbu ko ci jàkk yi di ko séddale yóbbu gi ci daara yi di ko defare waate jàkk yi di ko defare rajo jàkk yi di ko dimbale wuy néew doole yi ñëwul woon di béy pour wut alal dafa ñëwoon di béy pour suqali doomu aadama yi lotte yi ak yi néew doole yi loolu la nekk woon foofu ci waalo li ma wér tey fii nu toog ci waalo bu subaa kenn dafa def ndax jiina waalo yépp ay teraanga ak xéewal bu subaa ñëpp daañu màbba ñëw léegi ci guddi gi rek bi ma ñëwee gis naa mboolam jawaar ñëpp ñëw nañu xën na ñëw na ronk ñëw na waasul ñëw na mbundoom ñëw na roos beeki ñëw na bu subaa ñi si des ñëpp daañu xëy si ngir bis bii ngeen ko tuddee ñoom seen bisa daañu ko màggal ànd ak yéen bu ñu mënoon sax ñooy jël lépp def ko ba wan leen Moustapha li mu liggéey si waalo du ñu ko fàtte ci ñu ngi ñaan njabootam jël seen tànk teg fi mu ko tegoon ànd ñoom ci xeeti teraanga yooyu la sëriñ nit la bu tabee yàlla may na ko ñaari jukko sëriñ Moustapha boo demee dëkk ba gan gu wàcc guddi kër sëriñ Moustapha ngay reere fa ngay fanaan gan gu jaaxle kër sëriñ Moustapha lay laa yebal fa ngay dëkk fa ngay reere ku ñëw guddi boo ñëwee looy jëkk wax am kër sëriñ ba ñu yóbbu la fa kon sëriñ Moustapha ñëw na fa waaye ñëw fa wuti alal dafa ñëwoon di def ay xeeti teraanga ak dimbali jaamu yàlla ak dimbali loolu ma fa nekk woon nag noo ngi ñaan xam naa ne njabootam ñi ma xam jël nañ seen tànk def ko sëriñ Modou ma fa nekk ak ñeneen ña fa nekk ñëpp ñu ngi koy roy si boobu boobu modèle kon noo ngi ñaan ñàlla yal na yàlla jàppale njabootam yal na ko yàlla yóbbu mu bokk sa ñuy dëkk ak yonente bi si àjjana ak famille yëpp noo ngi ñaan yàlla njabootam gi fi des gi yàlla may leen jukko boobu ñu yor yooyu roy waa ñu roy ko ndax sëriñ Moustapha kenn du ko def nattukaay royukaay nga koy def yàlla may na ko mbaatin may na ko saayir ku ñu jàpp Moustapha fa gën boo amee nit bu njàqare bu ñëwee mu faj sa njàqare ñun béykat yi bu nu mësee am tiif bu nu dajee bu nu demee si moom wax ko rek mu faju ba mu dee ba tey wéet nu noonu ngeen joxe noo ngi leen di gërëm di leen sant di yemale foofu sama kàddu wa salaam mooy Serigne Yoro Diaw leen di wax ne mooy président du comité de gestion bu Grand nga xam ne sëñ Moustapha amoon na fa ay tool kon loolu itam firndeel na ne Serigne Moustapha ndigalul li ko sunu boroom santoon ci jullit ñi def na ko innamal mu'minuuna ixwa fa aslihu bayna axawaykum loolu def na ko kee ko seere di mbokkum jullit ñaareel ba it ndigal li nga xam ne Sëñ Tuubaa moo ko santoon ak njabootam ci jullit ñi def na ko wala tuaadu man raaytum faahu yuxriju laa ilaha illa allaahu loolu sëñ Musaa def na ko kon ki ci topp moo di sëriñ euh, Ibori Ka mooy président de la communauté rurale de Kër Momar Sarr dañoo fàtte woon léegi ci témoignage yi ne Serigne Cheikh Bousso di kenn ci njabootu Cheikh Mamadou Moustapha di ilimaani Poroxaan ba noppi bokkoon te ña daan jàngal gone ba ñu nekkee Poroxaan ca école ba Serigne bi wax na ne faw mu jël kàddu joxe ay seere Cheikh Mamadou Moustapha Serigne Ibori Ka bismillah bismillahirrahmanirrahim mbokk yi jullit yi maa ngi leen di nuyu. maa ngi jiital suma nuyoo. Serigne Lamine Bara Mbacké mi nekkatale ko Cheikh Ahmadou Bamba mi waral tey suñu jotaay bii di nuyu njabootam yépp di nuyu bokki taalibam yépp ñi nga xamante ne tey yàlla dajale leen fii ak ñeneen ñoo xam ne tey bis bi moo nga ci seen kër ñu fanaanoo di nuyu njabootu Serigne Moustapha Bassirou Mbacké di ci jiital Serigne Moussa ak ay rakkam di nuyu ministre Madické Niang ak délégation bi ànd ak moom maa ngi nuyu maire Ndar lii nga xamante ne moo ma tax taxaw fii tey maa ngi ci sant yàlla mi tax tey ma bokk ci jotaay bi ji ci sant Cheikh Awa Balla Mbacké bu Moustapha Bassirou Mbacké defe naa ne témoignage Moustapha Bassirou ci lu dafa dal di yomb ndax ñaari rakk Serigne Touba yi képp kuñ ko tuddee yàlla seedeel na la lépp lu ñu bëggoon wax ci yow li ma bëgg wax mooy 85 la nekk président communauté rurale délibération yi ma jëkk a def Moustapha Bassir Mbacké mooy ñaareel ki ñu jëkk may tool ci suñu communauté rurale ba fa yàlla inde benn ci li Moustapha Bassir wane ci ñun siggil na yoonu murid waaye siggil na yoonu l'islam yépp kon ñu ngi ñaan njabootam ñu wutu gannaaw yàlla na leen yàlla tagaw ba lépp fu Moustapha tagawoon di taxaw l'islam tagaw liggéey bi yàlla na leen yàlla yóbbu pour ñu mën a àggale mission bi nga xam ne moom la ko yàlla jël ak Serigne Touba bari alquran yi bari maa ngi sant ñëpp maa ngi gërëm ñëpp na mu sell ak Seydina Mahamadou Seck wax ne sëñ Moustapha ni doon ñu tëral moo ni islam nekk benn ñu doon yoon ñu tëy Xaadimu Rasuul moo tax sëriñ Abdou Aziz li nga xam ne mooy sëriñam daan na faral di wax sëriñ Moustapha ñaare ko masaan a seeti ne ko Moustapha na nga takkaat sa ndigg ndax kër diine ku fi ubbi yaay seenu taw wax na ko ba tàyyee xasida bii nga tiim sëriñ moo ko def ci sëriñ dama cee jublu seere ko di taw bi wax رفعنا سمي رسول الله مجد سميه حفيد حكيم المصطفى منبع الخير فعش سالما في أبد العيش آمنا جميع الذي تخشى من الضيق والطيب وكنت على الأقران كالشمس في العلا والناصر دين الله في السر والجهل وحاضر كل الخلق لله خالصا وناصرهم في حالة العسر واليسر وكنت لأهل العصر ظهرا مؤيدا بنصر وتوفيق من الله من أهله قصيدة سيدنا عبد العزيز وقرأت سيدنا مصطفى kon dëggal la li taalibe bi wax ne Serigne Moustapha benn loolu islam mooy li ko ñoroon islam bi mooy li yitteeloon Serigne Touba Serigne Touba bu masaana songu islam moom la song fu kër kër diine ubbi ko ci réew mi jàppoon na ne moom mooy sa loolu Serigne Moussa roy na ko jot bu baax a baax ñu wax ne bi ñuy ñëw suba ki jiite woon délégation bi am ngeen ko mooy Serigne Cheikh moom Serigne Abdou Latif euh, àndoon ak Serigne Bassirou waaye dafa am lu dal suñu kaw fan yi muy génn àdduna Serigne Bassirou Cham ñuy ñaan ci barke kilifa yu baax yi suñu borom dajale ko ak Cheikh Mamadou Bachir kilifa nga mu toppoon ndax ndëral naa ñëwoon ci kër gi doonoon jëkkëru Cheikh Mouhamadou Moustapha loolu tax sëriñ Cheikh dëkk dellu ngir ne am na jiite commission culturelle moom ma ko naa ko def ay seere ci sëriñ Moustapha muy exploitation yi nga xam ne moom itam def na ko kenn ku ne xam ne ne Serigne Moussa bi muy soloon booba ci kaw ay jafe-jafe la ko waaye ni ko xamee nit la woon koo xam ne su may bëri dëgg na dara di ko def rawatina ay xeetu liggéey ña nga xam ne wàcc na fa ñoom te nii mu ñu ko mbir mi muy àndaale dana tax duñu ko xam waaye ay étude ba gis ne cinquante millions danañuy danay génn ñaare ci li nga xam ne sëñ Moustapha moo ko exploité jëm ci tool yooyu nga xam ne mooy jëm ci ay nit ñoo xam ne suñu xëy du woon dem ca tool ya xëy na bu ñu taalee añ yeex wala bu ñu taalee reer mën naa yeex te ca njaal gën nga xamee wuñu ko woon noonu looloo tax am na jamono yoo xam ne bu sëriñ Moustapha daan set si toolu puud yi waxtu wuy dugg dëkk bi danañ ñoom ñëpp dañ koy topp ñoom jigéen ñi naan ko mbàkk yàlla na nga fi yàgg yàlla na nga fi yàgg am na bis boo xam ne biñ ko koy wax dafa tombeek muy ubbi weeru otoom bi ko soxna si ne yàlla na nga fi yàgg mu ne kon ndok ku yàlla kon bi ngeen xamee li ma indi ci yéen ndax booba njëlbéen bi xamuñu woon la ko taxoon a jóg waaye booba la ko taxoon a jóg lislaam yéen nit ñi dund ci jàmm loolu rek moo ko moo ko ko yóbbe woon kon côté économique ak côté social ni ko Serigne Cheikh Awa Balla waxe ci exploitation Serigne soo Bassirou ci la bokk noonu la demee kuut googu itam dem na fa liggéeyal fa lislaam liggéey bu rëy rawatina xaadimu rasul ndax dem na ba am na ñoo xam ne xetuk sëñ tubaa xeeñ xeeñ na leen ba ñu ñëw xeeñtu ko ci sëriñ bi ba ñu ci bari ay taalibe lañu ñii itam ñëw nañu jaxasoog njabootu sëriñ Moustapha ba doomi lislaam mën caa juddoo maanaam sëy sëy bu dagan nga xam ne dañuy takkante jaar ko ci seen i kilifa fan ko war a jaar ca ña ña leen jël sëñ Moustapha dinañ fa yóbbuloo woon rek ngir ñu lëggéeyal yàlla waaye ci biir lëggéey bu barkeel boobu dem na fa ak njaboot juddoo fa te loolu ci xelum sëriñ Moustapha lan lañu gëm nañu woon ak moom nanguñ ko ko mu digal ñu ko ci asal loolu moo andiloon Sëriñ Tuubaa coono bi ba mu julli ñaari rakkaay yi fii ci Ndar ndax dëggal daalante ba mu daalante woon ak borom Sëriñ Mustafaa itam li mu jaayante ak Serigne Touba gannaaw ba mu jaayante ak borom te xam ne la boromam jaayante woon ak Serigne Touba Serigne Touba nangu ko nangu ko boromam jaayante ko moom loolee moom bokk na ci ñi ko ko war a mottali mu jël ko def ko aw sasa defe ko nan jël laxasaay Cheikh Ibrahima Fall takk ci ndigg jël fas fasu Sëriñ Tuubaa maanaam gànnaaw fas yéene fépp koo xam ne Cheikh Ahmadou Bamba Sëriñ Tuubaa maanaam yéene woon na l'islam àgg fa Sëriñ Moustapha sol dàllam takk ndiggam fas yéene l'islam àgg fa mu fas yéene itam laxasaay yi xam ne moom la Cheikh Ibrahima Fall la asooye ngir wane Serigne Touba ba ñëpp xam ko xam ne lan waxoon ne man mii maay wéerukaay bi man mii maay wéerukaay bi man mii maay rawukaay bi ñëpp gindi ko ci Serigne Touba ba mën a raw mën a am kattan mën a taxaw ba li war ci islam ko taxaw mu jël yitteem yëpp def ko ci liggéeyu l'islam ay teere yi ci tribune bi ay bokkam sax ñi ko ci doon jàppale tey seet ak bëgg xam nañ ci gan la le Serigne Moustapha Diop Serigne Moustapha Diop ci réew mi dënk bu Serigne Bassirou mu yeesal ko tabax fa jumaa def fa ay imaam yoo xam ne lu nit di gëstu ci lislaam wala nga gën koo xamul ci Sëriñ Tuuba ba demee ci ñoom ñu xamal ko bu jar muy dëkk bu sëriñ ba siñ sant wala mu am fa kër ba demee sëriñ Moustapha ko am na ko def fa ay imaam yoo xam ne fu ñu dem royteef la ñuy doon ay tànneef la ñuy doon ci seen biir bopp ay tànneef la ñuy doon ci biir taalibe yi ay tànneef la ñuy doon ci biir yemul ci yow lëkkale lislaam lëkkale lislaam jaraloon ko lu nekk lëkkale lislaam jaraloon ko lu nekk waxtu wu nekk masaana ñëw ci ñun day wax koo mën a jébbalu ak kër koo mën a bopp maa ngi sa kilifa ndax Serigne Touba mooy jëwriñu lislaam te Serigne Bassirou la sedd kaw la te maay Serigne Bassirou rek. yemale kër yëpp ñëpp ñu ko fekk bu gàmm jotee foo dem fekk faa yi dara naan ci kër lislaam moo tax bisam bii tey ñi toog ci suuf ñi taxaw Serigne si amuñu fi ñu toog jomb. ñu mm-hmm. rek la noonu la. noonu la waaye nag. mu futteeku ngir wane Sëriñ Tuubaa ci boppam li mu njëkk mooy lan rek jëmmam dund war a may Sëriñ Tuubaa ba fépp képp ku gis Sëriñ Moustapha mu génn bu la jugee nga xam ne Sëriñ Tuubaa nga nit yow ci colom ci jëfam ci waxinam ci melokaanam jëmmam la gën a wet boppam la gën a ci way jiri nga xam ngir rek Serigne Touba am na daal li xam ne képp ku mbokkal Serigne Touba ñi ma mat jox ma leen cër ba ma sëkk kenn ku ci ne cër ba mu la jox ci Serigne Touba nangul gan nga ko nangul tax na duñ ñëw ci yow da ngay fàtte sa bopp moo xam wéy juróom nga moo xam magam nga ba bu ñëwee da ngay bëgg a wàcc fa nga nekk. jox ko barab ba ngir màggale ko ndax lépp du nekk Sëriñ Tuubaa ak warmaa bu ko wet na ay kilifaam ba ñi ko mag waxuma ay waajuram ku ko ci masaana woo sax téléphone mbaa nga yónni ndaw ci moom balaa wax ak ndaw la Sëriñ Moustapha day summi mbaxanaam wane ne sama kilifa moo yónnee ci man wala sama kilifa moo woo dëgg la ngir dundal war may Sëriñ Tuubaa muy njàngale moo xam ne nit ñi rek la ko jàng ndax jamono ji ñu tolloon mooy jamono ji gën a jax dafa mel ne bu fi doomi Sëriñ Tuuba nekkee ñëpp dañoo jàppoon ne ab sët bu ñëwee la Sëriñ Tuuba defoon ca doom te du ko mën a def ci Sëriñ Moustapha xamal ne ne déedéet ak warma loolu rek lañ koy liggéeyal te ku ca nekk ku ne yaa ngi ci ginnaaw bi ñu ca tàggat Cheikh Mouhamadou Amine ñu fi nekk yàlla fi yàlla yàggal fi wéral ko ci sëriñ Moustapha joxoñ na ko joxoñ ne dafa wax ne ñun ñëpp nañu jiital alaaji baara nii suma bu ñu amati ci baayam dañ koy da leen di jox kàddu ñu wax ci suñu njaboot yi tamit bi sëriñ Bassirou ñoo wax it ñu sant ma leen nag indi ay seere seere bi ma ci njëkk yi mooy fàttu na bis ci yeeree gannaaw tisbaar waroon na ko am ku yàlla ne gan ci nit ci àddina yi bu ma tudd mu ñëw ba ka fa ko bi mu jógee mu ñëw mu ne bu ëllëgee yéen ñi waxee si imam ku dul nawul bàyyi koo ci ki fi nekkal Sëriñ Tuubaa du nawul borom réew mi bu ma kenn fëggati nawul borom réew mi bu ko waxee xam addina ak xam ni addina di doxe moo tax sëriñ Tuubaa waxee ko nawul borom borom Tuubaa yi kenn xam ne ne ak tëralu bi mu wax loole am na jamono itam ñu ngi ko wutal wota jëlee ko benn katalo mu jóge États-Unis ñu indi ko ko Thiès ñu tànnal ko oto boo xam ne oto bu yéeme la mu ni ko ba jàgg mu ne bii de baax na lool ñoom itam xër nañu ci wut ji waaye nee leen nañ a ma wooree fu naa ci ne a léegi ne naa wax ci ni mu taxaw ni mu taxawoo nit yi diine yi taxawoo ñi nga xam ne bokku ñoom ñoom diine ba noonu wuñu woon Serigne Sowa ndax suñu borom terewul ak ñoom di doomam moo président Senghor bi fi yàlla jëlee mu ñibbi France Serigne Sowa dafay am ay jamono mu daan dem Maroc bi mu demee Maroc jenn jamono Senghor a ñëw Maroc ñu gis. ànd ak ñuy Ahmad ñu ñëw Fass bi soo ko wàccee seen sëñ Moustapha cofeet gi mu am ci moom tax muy àkk sëñ Moustapha ngir nuyu ko fakkas tol daal di daanu ci kaw sëñ Moustapha daal di jooy bi mu jooyee dafa wax ñu ànd na leen su ngeen gisee ma mën a nekk Sénégal yor réew ak yi ma ko te xeex musta am te sama diine gën a néew diine dañu nekk xalaat yi daan ci man ci pale bi ba jamono mën a am ci Moustapha Bachir mii la daan bàyyi damaa nekkoon ca xale ba di président de la république waaye xalaat yi daan yor réew ma ba jamono mën a am ci Serigne Moustapha la daan bàyyi ko loolu mooy seere si nga xam ne wax nañ ma ne naa ko wax ci ñi nga xam ne bokkutoo ñoom diine te rafetoo ka ca war te suñu borom santaane ko Serigne Moustapha def ko def def ko ba mu mat kon li ñuy jëbbal kàddu mooy sëriñ Cheikh Bousso mii toog li sama kilifa ndax jaar naa ci ay loxo sëriñ Moustapha joxoon ma ko mu jàngal ma li ilimaami Porokhane sëriñ Moustapha teg ko fa ba ko sëriñ Moustapha tegee itam ay jamono sëriñ Abdul Ahad ñëw na ko wër si barab bi wër si mu nuyoo ne sëriñ Cheikh Bousso mii toog wax ko fi mu bokk ak ni mu bokkee ak ñoom lii duggee ci kër gi sëriñ ko ne Moustapha day lambatu ci ñooy liggéeyal Sëñ Tuubaa ku xam loo maam nga moo tax nga jël barab bi jël sa lu soxna jaar teg fi Sëriñ Cheikh Bousso moom mu la ñuy jébal kàddu bi. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa tabi'in أيها الإخوة والأحباب بعد السلام الواجب maa ngi am mbégte mu rëy ci di leen ziyaara ginnaaw bi ma leen joxee nuyoo bu yàlla ci yéen di leen ndokkeel itam ci weeru tedd wi nga xam ne ci lañu nekk di leen ndokkeel itam ci xew-xew bu mag bii nga xam ne moom la ñuy dund tey muy xew-xew boo xam ne bii fàttaliku la ñaari rakk yoo xam ne sallallahu ma abdullahi wa sallallahu alayhi wa sallam amaam alxaakimi musta'mar ñu tuddee ko itam koo xam ne li sëriñ Bamba tànnoon doon ko ci rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam moom la tànn doon ci xaadim rasul muy Cheikh Mouhamadul Moustapha muy Cheikh Mouhamadul Bachir kon nag ñu ngi ciy ndokkeel kilifa yépp di ndokkeel ci seen jëmm seen kilifa yi nga xam ne ñoo nekk seen kanam ndax waxtu wi dafa xat moo tax may wax noonu di ndokkeel kilifa yi nga xam ne ñoo nekk seen kanam ginnaaw bi ñu leen siyaare ci seen jëmm di rafet rafetlu itam bu baax a baax jataay di wax ne sëriñ Moustapha moom sëriñ Bachir man ni ma ko jàngee dafa doon misaalum dimbalul suñu borom ci kaw suuf dafa doon misaalum ndimbalul suñu boroom ci kaw suuf wala boog dafa doonoon jëmmi ndimbalul yàlla lu doon dox ci kaw suuf noonu laa ko jànge ndax kenn ku ne xam nga ne Serigne Moustapha suñu borom may ci kilifteef rëy na yaatu na néewaa na nga gis kilifteef bu toll ne gi mu am sëriñ Moustapha moom Cheikh Mouhamadul kenn ku ne xam na ne li mu yilif ñëpp xam nañ ne moo ko yilif ñi mu yilif itam kenn ku ne xam nga ne moo la yilif te nangu nga ne ko kon li ko suñu borom mayoon ci yaatu na rëy na loolu itam kenn ku ne itam xam nga ne sëriñ Moustapha sos na lu bari sémb na lu bari nos na lu bari loolu waaye lu ci ne suñu borom da ko caa fekk dugal ca loxo loola di am na ko bëggee kon moo tax ma ne dafa doonoon jëmmi ndimbalu suñu borom lu doon dox ci kaw suuf loolu nag li ko ko may mooy man li ma daan seere ci moom rek laa mën a seere wax mooy dama daan wax ne sëriñ Moustapha moom Cheikh Mouhamadul Bachir suñu boroom da koo def jàmbaari lislaam joo xam ne yàlla da koo may dund gu teey may ko dund gu barkeel may ko dund gu nosu may ko mu def li ko waroon ci diine muy diine lislaam may ko it mu rafetal def defin bi taxawe na diineem rafetal na taxawe diineem itam yàlla mayoon na ko ci ak ubbiku akuk yaatu goo xam ne taxoon na mu xajoo kër bii nii ci réew mi yépp am ak ñoom ak jaxasoo akuk jokkoo seeni diggante rafet seeni diggante yaar loolu bokk yi waxoon nañ ko waaye kenn ku ne li nekk ci xol rek moom ngay mën a yulli muy koo xam ne kii itam li ma ko daan waxe rek li ko waroon ci réew mi def na ko waaye li ko waroon itam ci jaami yàlla yi dëkk ci réew mi itam def na ko moo xam njaboot la wala taalibe wala mbokkum jullit kenn ku ne la ko ci yow def na ci la ko ci yàlla mën loolu lépp sëriñ Moustapha moom Cheikh Mouhamadul ku bëgg ak bokk lool ku ko daan dundal ku ko daan jokk la te di ko rafetal sëriñ Moustapha moom Cheikh ku sàmm la woon ku am diine taamu la ku bëgg ñoñam la woon manoon lépp ci ñoom amul yëg ci ñoom te man leen sagal téye leen seen kaaraange ak seen yërmande ak seen dimbal yooyu dara dawul kenn ku nekk ñu ma ko daan waxee xam nga ni sëriñ Moustapha jëmmal na ko bari ci réew dundal ko ci lislaam mbokk yi du ñu ba léegi sos fa ay daaray alxuraan ak i école tabax fa ay jàkk ak i juma dël fa ay mbooloo wut fa ay barabi liggéeyukaay lu demee ne ay suuf yoo xam ne kuy njaboot wala ngay taalibe wala nga di jullit wala ngay mbokkum dëkkandoo njabootam ya fa nekk danañ la ca defal ak jàppandi ak yaatu nga defa daan solo doole di fa sàmm sa diine ak sa mbokk waaye barab yooyu itam li ñuy bari bari ak li ñuy yaatu yaatu fexe woon na ba lii tax doomu aadama mën a dund ci dëkkuwaayam dund bu sell bu tey fexe na ba loolu lépp am lu mel ne ndox ak courant ak téléphone ak hôpital ak école ay yoon ak i marché loolu lépp nag daf cee boole woon doon misaal ci nangoo liggéey rawatina ci wàllu mbay ak wàllu sàmm kon kooku ku ne xam na ne dugal na loxoom ci biir réewum Sénégal kenn mënta wax ñaata nit la wutal am xëy junj nañ ko fi léegi daanaa wax na itam sëñ Moustapha daana jàppale administration bi ndax dafa respecté woon loi bi kilifa yi daf leen doon jox cër ba ba ca ka gën a ndawee ci ñoom di leen sagal di leen teral fu ñu ko mën a fekk wala ñu fekk fa njabootam te it daf loolu lépp daf caa boole woon nag di yar ñoñam def leen ay citoyen yu baax yoo xam ne danañu nangoo participer ci développement réew réew mi nangoo fay impôt yi respecter administration bi ba noppi am ay comportement yu moom ci boppam itam mu amoon comportement diine boo xam ne ni ko sëriñ Bachir junj léegi yéeme na lool. ndax def waxinam nam ak mbooleem ay jëflanteem mënu ci xelmati lan loo koy yabe ah. wala loo koy xebate ak taaru bém sëriñ Tuubaa nag ak yittewoo gi nga xam ne moom la yittewoo woon nosug yoon wi ak wormaalante gee suturaalante gee dimbalante gi ak wegante gi ak yërmande gi kooku moom loo ca wax rek desal nga jëmmi jamono toog naa di xalaat ne man kat war na maa sadd ay bayit ci Serigne Moustapha moom Cheikh Mouhamadul Bachir ma xalaat ne bokkuma ci poursan maydani Cheikh bokkuma ci gawaree lefu mu woy waaye ma ne naa jéem rek ndax ma man cee génn ngir jaayante ak jëflante ma daal di lu dem fukki at ak juróom wala lu ko ci ginnaaw ma jéemantu woon ay bayit yoo xam ne wax naa ko ca ne ko shi'arukum azmun wa sidqun xidmatun mahabbatun hadiyatun lam tujhad nee naa ko su symbole yow sëriñ Moustapha mu Cheikh Mouhamadul Bachir muy sa màndarga mi nga xam ne ki nga ràññi ko ci ku dul yow mooy sa pësteef sa dog sa décision ak sa dëgg ndax xidma bi nga xam ne junjoon naa léegi ne li yonent bi li Sëriñ Bamba tànnoon a doon ci yonent bi sallallahu alayhi wa moom la tànnoon a doon ci Xaadimu Rasuul ak mahabba bëgg yàlla bëgg yonent bëgg Xaadimu Rasuul hadiya loolu kenn ku ne mën yooyu ma ne dama ko seet kenn mënut a yooyu kenn mënut a digal ma ne ko iradatun sadiqatun iraadatu siddiqi duna faneen ma ne ko sa taalibe Sëriñ Tuubaa itam bu ma ko doon natt dama koy jàppee taalibe taalibe sayyiduna Abu Bakrin Siddiq radiyallahu anhu ci yonent bi sallallahu ndax kenn ku ne xam nga ne Abu Bakrin ci lislaam kenn demewul kenn moom ndax mooy ki nga xam ne xaasama rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mural li neex ci ak dund ak la ca naqari mooy di ko seddoog yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kooku kemam yombut ci lislaam bëggug yonente bi yonente bi ak taalibeem gu rafet ci yonente bi sallallahu naa ko sa taalibe taalibe Seydina Abu Bakr Siddiq moomee moom la doon néew wax ne itam néew na nga gis njabootam goo xam ne jii nekkut ca la mu war a nekk ndax kenn ku nekk tënk na la ci lu la gàllankoor lu dox sa diggante ak pakk yi ak yàqu-yàqu yi kon nag ci gàttal ak bañ a guddal ak xataa waxtu yi daal koo ñuy ñaambal ci suñu borom suñu borom yiir ko ci yërmandeem te dëkkal ko ci àjjanaam yaatu ya ci wetu xaadimu rasul ci muhammad sallallahu alayhi wa yàlla mën na loolu yàlla na ko defal ci barke xaadimu rasul njaboot gi fi nekk itam yàlla taxaw leen sàmm leen ba lépp lu doon yéeneen ci Xaadimu Rasuul doon yéeneen ci lislaam ak yoonu mooy yàlla may leen ñu matal ko wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh sëriñ Moussa Sëriñ Bass nee na kenn ku ñëpp ngeen maase noppi te déglu ko Sëriñ Bass nee na